We are talking about APRC because the APRC leadership has blamed the European Union for meddling into the affairs of Gambia's politic in the wake of the party's call for the return of Jame. Thousands of supporters gathered to remind ECOWAS, the AU and the UN on the agreements they had with Jame. More of this report by Amifai. The APRC leadership has blamed the European Union together with the Gambia Victim Center and activists for allegedly interfering into its request to demonstrate the need for the return of former President Yahya Jammeh. The party, which staged a mass procession to remind ECOWAS, the African Union and the United Nations of their agreement with the exiled former president, confirmed receipt of police permit on the night before the event. Interim leader Fabakary Tombonjata told iAfrica TV that the police were under pressure by force outside the government. We must realize that there were unnecessary uh, internal and external forces on them, pressures on government, to deny us a permit as if we are half citizens of this country. He noted that the mass demonstration is triggered by the silence of the sub-regional and international bodies on the commitment they made to convince Jammeh to leave the state house after his defeat by the coalition in the 2016 presidential elections. Since he left here, we had been on engagement and dialogue with UN systems. We met Ibn Kembas, we met the uh, UN, UN uh, West African coordinator, and we, we are saying the same things. We wrote letters to them. Now, for, for three months, we have not had anything. We now felt that we should come out on a peaceful demonstration to deliver, this time to demand for the full implementation of the joint declaration. He assured that his party will remain law-abiding in fulfillment of its pledge to be an opposition with a different. We are a different opposition. We don't believe in violence, neither do we eh, believe in force. We respect people's beliefs, respect them. We can disagree with them. Uh, we expect also people to disagree with us, but respect our views as citizens of this country. It is true that th those type of tolerance that we can build a unified, peaceful country. However, the party secretary had warned on Wednesday that the APRC will go ahead with its planned demonstration with or without a police permit. The Thursday mass gathering by the party that ruled the country for 22 years is attributed to a command from Yame, who in a leaked conversation with the party expressed desire to return home as per his agreement with the ECOWAS, AU and the UN. Reporting for iAfrica TV News, I am Amifai. Watch uh, Amifai there reporting on the Thursday's peaceful demonstration organized by the APRC euh mam jibi euh ak jul dañu delu bi silinga li nga xamantene na demba ñu bari ñu do wax ne ndax dena dena am waladu am finally am na ñu gis nañ li nga xamante ne noonu la demee euh, gars yi waxoon nañ peaceful demonstration la euh, démb nag ñu génn si bu baax ba wane waar seen bopp si seen euh, woote li nga xamante ne mooy pour ñu respect agreement bi nga xamante ne amoon na seen diggante former président Yaya Jammeh ak yi nga xamante ne mooy international organisation yooyu ñoom EU you know ECOWAS ak United Nations ñu implement li nga xamante ne mooy déclaration boobu noonu. démb yaa ngi fa woon eh, lan nga ñu mën a indil ci li nga xamante ne mooy ci xew-xew bi lan nga ci mën a jàpp ak liñ nekk di demande da démb yeggee nañ EU eh, li nga xamante ne mooy seen bataaxal bi pour ñu respect li nga xamante ne agreement bi. waaw mu nekk taxawaay bu am solo ndax dañ ne eh, réew démocratie <coughs> dafa nekk réew mu nga xam ne ku nekk da nga loi daf la may nga xeex sa àq gi yelleef. ak ak yelleef bi tamit xeex ko nekkul ne da nga koy def ci sa coobere bopp wala ci sa sañ-sañ da nga koy def ci loi la may ci loi mayee ñoom gis nañ ne loi moo leen may ne mun nañoo génn dox dox ñaxtu wane seen taxawaay ci bëgg-bëgg nangutoo yi nga xam ne njiit réew mi fi nekkoon di jàmme te moom moo leen jiital te ñoom ba tey ci ginnaawam la ñu topp ndax am nañ cofeel ci moom te loolu li koy firndeel rek mooy boo gisee mbooloo mi génn démb te élection bi weesu 2016 ñetti pàcc la ñu xaajoon réew mi APRC amoon nañ seen cër coalition bi am seen cër GDC am seen cër dafa mel ni ba tey de wane ci péete ni li wooteeloon Yaaya Jammeh yëpp démb génn nañ wane ba tey ne ñoom ñu ngi ci ginnaaw Yaaya Jammeh kon loola ñu bëri waruñ ci am mbetteel ci gis mbooloo mi génn adduna bi ñu bari ñu ngi wax ne waaw ñoom dañu am euh, mbetteel ci di gis ba tey ji APRC buñ mun a pull out this kind of crowd in a sense of ñoom sax ñu ngi wanee ne li tax mënuñoo génnee mbooloo mooy ci guddi gi lañ door a am yëg-yëgu ne jox nañ leen pamit mu méngoo ak loi te ñoom bëgguñu woon a xëtt sarta benn yoon loola gis nañ ne jàpp nañ ne loi moo leen ko may leneen nag ci gannaaw liñ sukkandiku di ko xeex wala di ko ñaxtu dem nañ yóbbu nañ bataaxal yi fan ko war a yóbbu muy ekowaas EU ak ñi nga xam ne ñoom ñoo defoon nangutoo diggante jàmm bi mu fiy jóge ak nguur gi fi nekk mm-hmm. dinañ xaar lan mooy doon tontu yi. ak lan mooy ëllëgu njeextalu ñoom seen génn. Mhm. ci protest bi nga xam ne la tax ñoom ñi def ko mooy ñëpp li ñu doon wax mooy ne na jàmme dellu si. na jàmme dellu si mhm. seen tisaat si soo gisee jàmme mos comme baag lañ doon wax. ak yu jëm ci yoyu agreement bi nañ ko nañ ko fulfill nañ ko respect nañ ko respect because of deputy euh, spokesperson bi buñ ko dalalé mu ngi doon wax ne lolu euh, ben la si ponk yi nga xamantene ñu ngi ko demand moy jambi mu ñëwaat waye amna leneen li nga xamantene bokku na ci agreement ni da 14 li nga xamantene moy points lañ d'accord on ak mom té lolu yëpp dañu am pour implement lolu bokku na ci duñ jaay alelam duñ laal kenn ñi nga xamantene mo andal ak yoyu mhm. waye lolu yëpp dafa melni sam buñ ko daal wa ñak ko sam tax na tamit ñu ngi doon wax wax ak ki nga xam ne moom moo nekk député parti leader bi tamit muy Rambo jaata moom tam mu ngi doon fësal yu mel noonu di indi mandarga yu bëri yu nga xam ne depuis 2017 jàmme jógee fi ba tey dafa am ñoom gis-gis bu buñ gis ne lu bëri daf fi am te du dara lu dul rey APRC walla xeex ñi nga xam ne ñoom ñoo toppoon seen ginnaaw wax na ko dem nañ ba wax ci wàllu TRRC bi mu ne gis nañ ne ñoom TRRC bi du dara lu ko tax a jóg lu dul xeex li nga xam ne moom moo nekk taxawaayu darajay APRC waaye ñoom APRC loolu mënul leen a daaneel ci benn côté kon démb bu ñu gisee tamit mbooloo mu mel ni génn lan mooy taxawaay bi ñu doon xaar ci ñu bëri ñu doon am gis-gis ne TRRC dammate nañ APRC ak ñaawteef yiñ fësal ne jàmme moo ko def ba tey mu am cofeelu mbooloo mu mel ni topp ko wane dañ dañ ko bëgg loolu tamit lu jar a bàyyi xel bu yàggul moom yaa jàmme wax na julde xaw ma ndalul bokk na ci li tax nit ñu génnee ni démba waaye fi ma bëgg a ñëw yow rek dégg nga fa Bakary di ko wax am nañ euh, ci ci isu pamit bi li taxawoon mu dilé mu né eh, nguur gi ñu ngi amone pressure internal and external pressure bokk na ci nga xamantene moy eh, ñu melni comme victim Center xam nga né ñu ngi doon wax né nguur gi ñoo jox eh, APRC pamit ak yoyu té tamit ñom amone nañ concern sax ya jame ñuy demand muy ñepp si ci réew mi lool yépp boko boko déggé mu wax ko te ñu gis li xew dem ba lan nga ci mëna indi ci ah uh, because um, Yankuba Koli moom mu mu doon wax ah, interview with Star FM maa ngi ko déglu mu ne moom they are expecting hundreds of people foog naa ne the crowd they managed to ah, pull out a huge crowd yesterday te ñu bari waa saying ne ah, a parti bu dee la mm. waaye démba foogoon naa ne daal luñ dégga si nit ñi ah, plus crowd buñ fa gis ah, dina wone ne APRC ah, they still have supporters yeah ba léegi deyaaguñ <laughs> te jaame sax si audio yeah si audio ñi te jaame sax si audio am bi dégga moom mu ngi wax ne APRC they are di majority ba léegi moom daal mu ngi believe ne they are the majority te démba gis nañ ne crowd bi defari Afa Bakary Tombong Jatta nag mu ne internal pressure la um, because dëgg la gis nañ fi people like victim center gaa ñu ngi génn pour wax ne activité waaw uh, activist di wax ne waa waru ñoo jox APRC permit because you know it's not the right time for Jammeh to return pour mu dellu si fii si um, si réew mi waa gis nañ ne victim center sax tey ñu nge leeral ne tamit uh, ñoom dañoo protest against lu tagaay ñu jox APRC ah, permit bi ñoom tamit dañ ko dàqalu te ñoom ñu ne tamit dañoo protest waaye lii démocratie la ah, man gëm naa ne ku nekk am nag sa àq ak dañ ko war a protect APRC tamit they are Gambians they have their right to ah, protest te léegi tamit nguur bi moo leen jox da permit so um, lii tamit lu jara baay xel la because ñu ñëpp a bokk dikka bi um, yow am nga right pour nga protest soo fiilee ne dara mu nge xew loo xam ne bugguloo ko you are a citizen you have the right it's your constitutional right to protest waaye ñoom tamit suñ fiilee ne tamit government bi lu mu def is not in their favor ñoom tamit equally they have the right so but condemn ñeneen yoo xam ne uh, like you know yours because simply because you are right like you gom nga you ñeneen yi waruñoo exercise and right I think Hamga, that is Lulu dañ ko war a because dëkk can be la te ñun ñoo ko is only peace that will you know move this country forward so I think ne uh, victim centre bi they are concerned uh, Gambians some Gambians are also concerned but I think suñ waxee Munanyo Dego, is better than Niro ngaaroo bi Wafale fii wax fale di threaten fale di so I think the APRC definitely send peaceful. peaceful démonstration romba na romba na so I think léegi des na si pétition bi EU waaw the the end product of the petition whether the EU, ECOWAS and AU dañoo comply with the conditions of the APRC or not loolu tamit mun na koo dégg te mun nañoo am tami APRC ñu wax ñu you know some of their you know what what were the key points that they were actually demanding because am nañ fi keroog spokesperson deputy spokesperson bi Doudou Dia moom waxoon ne ah, lu um, part of the protest is that ñoom dañ uh, the agreement was that duñ jaay alali jaame waaye gis nañ ne government bi dafa jaay alali jaame te xamuñ sax you know xaalis bi fan lañ ko def. kan lañ ko jaay ak naka la. naka la te te loolu sax it went for the yesterday. ci mm-hmm. kàddu Rambo tamit wax na ci ne. moom ñoom xam nañ ñan lañ jaay alal ji. Mm-hmm. gis nañ niñ ko jaay te teguñ ko ci yoon ba tudd na ay tuur sax. Mm-hmm. ñu nga xam ne ñu ngi liggéey ci nguur gi ñu ñëpp xam lañ te loolu yëpp ñoom jàpp nañ ne lu méngoowul ak luwaala leneen ci internal ak external li nga xam ne ñoom wax nañ ne mu ngi doon nekk constraints wala difficulty pour ñoom ñu jot pamit bi. ñoom ñëpp ñëw nañ ci in fooda because tey bu ñu ñëwee ba ñu ne euh, ci mbootaay àdduna bi ñoom ñu ngi doon xeex pour nguur gi buñ jël li nga xam ne mooy pamit bi jox ko si ñoom am nañ gis-gisu rek ne ki lay jox ki la ki la abal bët moo lay woon fa ngay xoolee ñoom liñ jàpp rek mooy ñooñu segam ñoom ñooy jox nguur gi xaalis wala am na interest bu ñu am ci biir réew mi ci wàllu koom-koom loola moo tax ñoom ñi nekk di jël li nga xam ne moom moo nekk advice wala di tere nguur gi bu ñu war a def lii wala bu ñu war a def lale wala di ci xeex et puis ak yu jëm ci yooyu. waaw